yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ñu digal bu ñu ko jàpp jaaree yàlla bu ñu noppal te alhamdulilahi rabbil alamin nun ni ñi yàlla doo Sëñ Tuubaa mooy lépp loo xam ne Sëñ Tuubaa lu mu santaane loolu la yàlla ak yonent bi santaane yàlla mi mën a aar su borom aar leen yàlla sàmm leen yàlla suturaal te ñu ñaani jàmm tam jàmm yàlla suñu borom man de saa bu ma sama jàkka ji lu ma leen ñaanal man danaa leen sàkku nga ne ñaanal leen yàlla may ñu jàmm réew mi yàlla may jàmm suñu dëkk bi yalla may jam suñu kër yi ak suñu njaboot a jàmm àdduna jam àllaaxira yàlla suñu borom defal jullit yi yëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala sayyidina muhammad sallam